Nafissatou Diallo jiite yaa jiite itam PDS euh, coordinateur PDS euh, département euh, Linguère dañuy njëkk bala ñoo àgg ci wàllu politique dëgg ak assemblée beeg seen digg ak wàllu Sénégal hôpital Le Dantec da ngeen ci génne communiqué bërki démb di wax ni seen xel daa tey ci ni ko Macky Sall bëgg a defee ci xaalis bi ciy dem ak ñoom seen. Euh, est ce que yéen waa PDS war ngeen wax ci le Dantec ndax bu doon seen sago rek ba lay wat nekkee président tuxal nañ l'hôpital bi euh, suuf si ñi ngi doon jot da ngeen ko bëggoon sax saxé sakal ko pexé laxas ca jaan est ce que yeen dantek war ngeen cey wax nak wax deug yalla yeen wa PDS jërëjëf babaka euh, mom may ma nuyu sa auditeur ñi dégg tay di nuyu sénégalais yépp di nuyu wa jolof yépp je pense que le dantek dafa nek dossier bo xamné buñu xam la tey je pense que lii Sénégal sénégalais war xam donc il faut une petite euh, rappel de l'histoire et c'est très important parce que président Ablaye Wade il y a yore nguur gi dafa jàpp ne Dantec boo xoolee ñi fay ñëw ñëpp Babacar ñu joggé ci all bi lan wala ñu joggé ci banlieue bi bañ ko xolé xol ñu né donc pour ñu régler problème Dantec il faut ñu. délocaliser délocaliser non pas délocaliser dañuy defar déjà ay hôpitaux yo xamni ni au niveau de la banlieue donc ñu avait deux solutions première solution moo de defar l'hôpital Dalal et l'hôpital hôpital et l'hôpital hôpital l'hôpital des enfants donc la première option c'est de faire l'hôpital yi ba Si nous ñu paree nag ñi toj Dantec de mais yéen ñëpp. Hmm, du woon loolu de. non si ah, non li may wax tey les professeurs de Dantec ñi ñuy déglu les professeurs de Dantec ñoo ne woon ñoom. sëñ Thiam waa déglu boo ma paree nga wax. tuxal ngeen waxoon. waxuñu bu waxoon toj defaraat. dañuy defaraat Farba Senghor moo nekkoon d'une certaine façon à la manœuvre ci wàllu woowulee. non dama la wax li am aujourd'hui les professeurs de Dantec ñoo ne woon ne ñoom du dem dans un premier duñu dem Dalal jam ndax dafa sori mais aujourd'hui ce qui se passe à Dalal jam malgré aujourd'hui li fa investir mu nek un hôpital bo xamni c'était un bijou waron waron na romb fi mais président Macky Sall ñuy gis ngeen daf ko tëj bu dootoon Covid bi tay kon dala jàmm ba mi ngi tëju yàqu te on a mis beaucoup de milliards. aujourd'hui on a ah, mis parce que tamit sen chantier ba da yéex itam. def na ay at. aujourd'hui mënut yegg mënut a non bañu paré bañu 2012 presque paré woon aujourd'hui il y a des professeurs yi dem bañoon jógee Dantec dem fa il y a des professeurs à à Dalal Jàmm lu tax ñu bañoon dem en 2012 yaa ngi ko professeur ñono duñ dem président Ablaye ne leen li ma xam ba xam moy dal moy Dantec dafa maguet benn dërëm buñ duñ ko fi duggal lañ koy toj defaraat ko aujourd'hui maintenant le président Macky Sall xam na dossier Dantec bam mu qu'est-ce qu'il a fait 2014 dem na fa ñu won ko un plan deful dara li le président Macky Sall loolu Sénégalais war ko xam moy li xew Linguère mag hôpital Magatte li xew en 2021 vous avez rendu vu les professeurs au niveau de la commission d'entreprise de une conférence de presse pour attirer l'attention du niveau de dégradation de l'hôpital de commission d'établissement voilà commission d'établissement le niveau de dégradation de Dante. ils ont rencontré le ministre après ils ont rencontré le président Macky Sall le président Macky Sall a pris des engagements qu'on va refaire l'hôpital de Dante. mais li qui nit ñi cas, li xew ñu une décision en mars Nous bëgg ko en août mais est-ce que vous êtes bien placé Exactement, Babacar, l'on l'a donné est-ce que vous êtes bien placé pour très bien placé. communiquer Parce que vous êtes là depuis. Il faut qu'il attaque solution bonne, solution apportée au euh, euh, Dantec malgré la dégradation de l'ouvrage on a on a pris les devants on a construit trois hôpitaux bu paree pour déménager Dantec pour pare bëgg defar Dantec loolu moo la solution. aujourd'hui maternité Dantec rek euh, ci seen nguur tëj na lu ëpp juróomi at. aujourd'hui defaruñ ko Babacar xam nga li gën am solo pourquoi ñi sommes ba 2022, mars 2022. Nous vingt deux ñu nañ déplacer hôpital bi en août il faut fermer l'hôpital pour le construire en septembre le Sénégalais yi mënu comprendre tey boo demoon Dantec Babacar tey mais de sa yaram dafay daw a beaucoup quelques services mais y' a beaucoup de services qui xam ne def nañ fa ba médecine interne ñi ngi foofu ba néphrologie ñi ngi foofu ba Il faut trois services rek fa mais Babacar li aujourd'hui on est dans la précipitation mais combien de personnes vont mourir avant ñi leen en charge parce que les archives sont là-bas il faut faire un reportage à la aujourd'hui vous allez vous rendre compte que c'est une catastrophe sanitaire qui va se poser au Sénégal et je pense quau delà de le président Abdoulaye Wade wax dañuy def commission d'enquête sur le financement de Dantec mais je pense qu'après, il faut une une commission d'enquête sur en tout cas la catastrophe sanitaire qui va se poser avec le déménagement de Dantec beaucoup de personnes vont mourir et là, je pense c'est la responsabilité du président euh, Macky Sall et du ministre de la santé. waxtaan wi ñu gën ko def ci wolof yow tamit xanaa jóge woo jolof itam. moo tax euh, euh, ma ne donc li may wax moo di déménagement bi dina indi ñu bëri dañ ci dee parce que yóbbu nañ yenn service mais yenn service yu bëri ñi ngi foofu demaguñu. waaye li gën a garam euh, Babacar nit buy feebaree dafay am dossier médical archives yi ñu ngi foofu demuñu bala ñoo jëlaat dossier bi ba xoolaat malade malade bi li ko dal ainsi de suite ainsi ñu bëri dañ ñàkk seen bakkan. li nga wax ni ñoom waxuñu loolu de. mais du lu ma li may wax Babacar bu êtes des journalistes. non mais démb sax dalal nañ koo xamante ni am na xam-xam ci wàllu wuule. foofu la nekk déglu naa ko déglu nga ko. Euh, ñun aussi on a on a des amis on mm. dañuy dem foofu di xool on est des on fait nos renseignements je vous demande de faire des dem fa xool li fa xew def leen fa archives yi ñu ngi foofu demagul ba léegi. tey sa euh, kii mu euh, docteur Ibou Diop suma n'est nee dañuy délocaliser la marque donc progressivement. c'est Thiam ñu dem Ibou cham quoi. mais attends mais le problème qui se pose moi aujourd'hui déménager ñep yag nañ déménager mais ça se prépare dañ koy déménager au fur et à mesure lépp ñu jël ko à temps lépp programmé mais d'accord, nga ci né euh, ngeen ci continuer. mais xam nga depuis avant 2012 lañ ko xam ba jël nous devant xam nga ce qui est grave avec le président Macky Sall il est dans l'improvisation tâtonner da ngay tëgg bët sër rek nga ne tëb damay def lii. mais munoo wax loolu parce que quand même boo xoolee ci hôpitaux yi mu jot a construire ku nekk gis na quand même ci wàllu wóole def na effort yu bëri. ci région yi presque toutes les régions léegi am nañ seen hôpitaux. mais def nañ effort mais li li des mu ëpp le problème de dantek man ñun ñëpp daf ñu jaaxal parce que dantek du lu bees du lu bees bettu ñu dañ ko xam pourquoi ñu toog ba tey bëgg tëb pour toj nous ñu financement bo xamni financement aujourd'hui Babacar comment vous voulez être en 2022 ñu né dañuy pour au même moment l'État en train d'acheter des terres partout aussi non avec le montage financier ah. jaay suuf gi moom jaay suuf gi moom yéeme na jaay gi Babacar en avril bi passé le ministre des finances a fait un soucoupe de 330 milliards pour dem les sphères ministérielles vous pensez qu'aujourd'hui, les sphères ministérielles sont plus urgentes que euh, Dalal Jamm euh, que Dantek ainsi de suite 330 milliards sphères yoo xam ne ba ñu dañoo ko jaay na ko euh, euh, gouvernement du Sénégal moo ko tabax. ci wàllu montage financier bi ngay wax noonu est-ce que yéen tamit mun leen reprocher on a vu montage bi ngeen def. Euh, ci monument de la renaissance xam nga aujourd'hui sax sax suuf xam nga aujourd'hui le PDS ku xool PDS tey xam ne PDS bi fi nekkoon ak bii différent waaye PDS PDS la rek laay waat fi ba léegi. waaw mais laay waat mooy suñu kilifa mais Babacar yow mi xamoon PDS. ñi ngi fi gis tous les jeunes cadres qui sont là mais n'était pas Karima euh, moo leen di wax fi ngeen teg seen tànk. te ñoo fi nekkoon démb itam. Laye Wade Karim. mënoon nañoo gëm la ne PDS bu bees dafa am. non PDS moom PDS 74 ba léegi. benn la rek non Babacar nit ñëpp mënuñoo nekk dama ne ne. on a un bon coach. Ouais, les jours. beaucoup un coach en réalité C'est Laïwad ou c'est Karim C'est le président Laïwad qui est là, c'est notre coach. Karim, c'est le capitaine de l'équipe. Donc, <laughs> c'est vrai, c'est ça. Le, Karim, c'est le capitaine de l'équipe. il, WhatsApp. Il joue avec nous. Donc, même lui WhatsApp, c'est un bon capitaine. Et nous, nous, nous, sommes capitaine. Donc, les Amsolo Babacar, Sénégalais, Dantec, c'est une catastrophe sanitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Sénégalais sachent un niveau de gravité pour mënuñ jël ay malade ñu leen xamaguñ fu leen di fajee tey am ñoo xam ne mënuñ dem jël sen rendez-vous vous pensez que ça c'est normal dans un pays au 21e 22e siècle c'est extrêmement grave ce qui se passe à Dantec et je pense que au-delà euh, problème financier il y a un problème sanitaire que en tout cas les parlementaires. waaw moom nga moom nga waxoon sànq waaye. Hmm. yéen waa PDS ak sen mbootaay giñ tuddé tuddee nga xamni mom ngeen démé won élection euh, locale ak élection falum député. Euh, dañuy dégg coow li fan yi am na démb sax euh, fu ñu jàng xaw ma tey ne Laay Wàdd nee na euh, seen digg ak Yewwi du diggante bu dara maanaam seen ànd ko ngeen ànd demul fenn te du sax du wéy est-ce que loolu mën nga ñu ko dëggal walla da nga koy weddi. mais xam nga ñu lu ñu jaaxal ci journal bi ko bind jël rep mu reprendre benn site boo xam ne surtout xamu surtout lan la surtout internet boo xam ne kenn xamu xamul kenn mu ne ci gannaaw jël benn basé tout son argumentaire que. Ablaye Wade dafa mere Sonko parce que Sonko moo waxoon ne les anciens présidents Ablaye ñooñu na leen rey mais nit ñi dañoo fàtt ne loolu ba ko Sonko do en 2018 la 2019 Ablaye Wade recevoir na fi Sonko. qu'est-ce qui s'est passé entre temps. non d'abord attends pour que loolu yëpp ngeen ngeen bàyyi ko non non non. qui s'est passé c'est que Ablaye Wade li gën am solo Sénégal moo ko gën a am solo lépp sa personne Sénégal moo ko ëppal lépp njëriñ bu Sénégal taxawee lépp lu mu jël da koy bàyyi président euh, Abdou Diouf def na ko lu nekk 24 fois tëj na mais ba mu ñëwee da ko avec tout ce que Sonko vous a dit euh, finalement. ce qui est intéressant. ce que le grand, na parce que Laye Wade tamit tam na fi dem euh, Pape Diop ak yu kenn xamul. ak ñoom Macky Sall ak li am solo mooy mm. àdduna li am solo tey. président Abdoulaye Wade. politicien yaa ngi noonu non non du wax politicien mm. Babacar ñun ay jeunes lañ c'est des jeunes cadres yo xam war nañu am une manière de faire ñun ñu buruñ top ni politique politique. mais est-ce que méthode yoyu du méthode yo xamanteni ni nañ ko gis fi même si vous êtes des cadres des jeunes. non je pense que ce qu'il faut dire moy aujourd'hui en tout cas li gay wax ñun xamuñu ko gisuñu ko man dégguma ko def nañ une réunion de la communication le samedi. yaa yaa ngi yaa ngi jëm a euh, journal la tribune bu Bougane Gueye Dany moom ngay wax mais tay Walf Quotidien mo xey ni. Mhm. Yewwi walu du dem fenn du dem fenn waaw. Pape Diop euh, euh, Babacar man li ma wax moy tribune li tax mu bind ko ban intérêt ci am ak lut kan mën a ci gannaaw nañ ko xool. munoo wax ni Walf dafa am intérêt Walfadjri maintenant Walfadjri moo xëy bind Yewwi Wallu du dem. non du dem xam nga loolu ay yéenam la wax ak une dafa prospection la nek nous inédit dans l'histoire politique de Sénégal et même de l'Afrique c'est la première fois depuis 1960 Sénégal l'opposition gagnée au niveau du Parlement au niveau de l'Assemblée, je l'ai dit. Gagné, comment ça Non, gagné, parce que 83, positions mais am, Ben 82. Même du point de vue même des suffrages. C'est un bail, le Wartam Yinga Safal aussi. Oui, Safal, <laughs> euh, Babacar, nous Safal, la réalité de l'am. Vous n'êtes pas majoritaire. Hein? Aujourd'hui, ce qui se passe, moi, Sénégalais, nous avons une majorité, c'est un ak seen bëgg-bëgg ak vote en nombre de voix. comment l'opposition est majoritaire dans ce pays. non non naka ngeen majorité. non ben ñun am nañ 1 million 71 plus 471 voix mo ëpp li ben 1 million 500 ben bokoy rek am. loolu on n'en discute pas. Mhm. maintenant damay ñëw ci li ngeen wax xam nga Yewwi ak walu ñu ñoo bok liggéey bi liñ ñu bëgg nag mooy Sénégal changer maintenant est-ce que dañu am ben groupe parlementaire dañu am deux groupes parlementaires dañu am trois groupes parlementaires on est en train de discuter je pense que li gën aujourd'hui ñëpp xam nañ ko que am deux ou trois groupes parlementaires. quelle est la part personnelle de Karim Wade votre capitaine parce qu'il ne s'est pas investi mais il est Qatar mais il faut mi euh, est-ce que euh, vous n'avez pas profité aura Ousmane Sonko bi mu yóbbaale la. ñun yóbba ñun PDS dans une élection locale on a eu 450 000 voix Nous avons PDS mënul am sans président sans un directeur de campagne sans Karim Meïssa nous ñun eu ñoo fi nekkoon ni dem élection euh, législative am 471 000 donc c'est notre électorat on est resté figé sur notre électorat le PDS c'est un parti ancré au Sénégal l'électorat chimique du PDS euh, euh, en tout cas on a un électorat qui est là qui est fixe Ça veut dire que nous, ce l'apport aujourd'hui du président Abdoulaye Avec l'apport de analyser non c'est ah. normal on était à 500 000 550 000 voix gisuñu Karim Wade nit ñi les gens se posent des questions mais jour bu ñëwee ngeen gis ne les choses. à chaque fois na ngeen di wax ni day ñëw day ñëw depuis 2000 biñ ko biñ ko génné kaso ba léegi kenn gisu ko. non dina ñëw parce que amna ay quelques dossiers yo xamné won ay recours yu mu régler buñ ko régler par Karim Wade. war ma di yan amul amul problème amende kay 138 milliards lañ ko wax mu fay. mu mu ñibbisi xam nga amende bo xamné ne nguur goo xam doole la jël amende la Babacar loolu ku mu neex xam nga lolu kenn du ko. du ko tribunal moo leen daan pour être concret euh, Abdou am hmm. euh, bu leen Macky Sall euh, sàkk woon a gis waxtaan ak yéen ba may Karim mu ñibbisee ak ñoom seen mën na sax bokk xëy na ci élection 2024 yi est-ce que yéen waa PDS ak wàllu di ngeen fekki Macky wala.

est ce que Macky da ngeen naan mukk mukk mukk du nu du nu ànd ak moom wala. non xam nga mukk moom àdduna kenn dox mukk surtout ci politique. Ah, yaa ngi ñëw de dama ne ah non politique laa la wax kenn du ci wax mukk mais man li ñu gëm tey PDS mooy ñun li ñu Macky Sall teg depuis 2012 ba léegi tegu ko kenn gars yi dañu gaaw yuuxu rek gars yi dañu ragal rek mais ñun lu ñu teg. teg ko Karim teg ko président la laay war a tegoon waa PS ba mu faloo rek itam. du benn président Ablaye réew mi moom politiciens yi. non leader politique boo xam tëj nañ ko ñetti at ci kaso wonkul deful dara. Babacar amul mais Idriss Seck eh, itam yóbbu nañ ko kaso 6 mois 7 mois lañ ko tëj. mutu sax un an c' est pas la ah, bañ ko génne dañ ko génne bàyyi ko mu dem doxal soxlaam yàqun ay kayit yàqun dara jox bàyyi ko mu dem liggéey ñun li ñu daj kenn daju ko ñun nag du ñu nekk fi di yuuxu doon dañuy liggéey li ñuy liggéey xam ne sénégalais yi xam nañ li ñu fi bàyyi woon xam nañ li ñu fi war a jubbanti xam nañ li ñu fi war a indi avec la transhumance eh, eh, nekkoon ngeen les champions aussi ci wàllu woowule waaw xam nga àdduna lépp day dox Sénégalais yi tey ñoom ñoo régler cette question Sénégalais yi tey ñoo wan ne transhumance bëgguñu ko. da nga bëgg effacer mémoire quoi. non du effacer Babacar les choses changent àdduna ku nekk ak don bi am bi am moom ngay régler li les on avait on pas les mêmes problèmes en 1960 ak Sénégal ak léegi mais aujourd'hui suñu problème jamono du bokk suñu problème maam yi. léegi bu ngeen demee assemblée xam nañ ni ci département yi yéen ak yeew yi yéen a lëkkaloo woon mm. waaye ku nekk daa liste nationale am. Mm est-ce que assemblée nationale bu ngeen demee yéen da ngeen beru def seen groupe parlementaire bopp yéen waa wàllu. en tout cas ñun euh, les les suñu députés yi nga xam ni yëpp dañu falu PDS moo leen proposé réunir nañ daje nañ au niveau de la permanence waxtaan nañ te waxtaan boobu je pense que dañu ngi continuer ak waa Yewwi pour xool ban en tout cas euh, lan mo gëna rafet lan mo gëna a baax pour ñu mëna am taxaway bu am solo parce que je pense que ñun ñëpp luñu bëgg moy opposition bi am fa taxaway taxawaay boobu nag est-ce que bu ñu amee deux groupes parlementaires mooy gën wala bu ñu amee trois wala quatre loolu ñu ngi ci gën a ñu ngi ci discuter. est-ce que mais jàppaguñu benn benn benn décision. est-ce que euh, amnistie Karim Wade bi mi ngi sur la table. Je ne sais pas, je sais pas. Une amnistie, on n'amnistie pas une personne, on amnistie des faits. Oh. donc il faut pas que gars japonais Karim Wade rek moo soxla ah, moo soxla mbir mi mbir mi du ab Karim Wade. <laughs> mi <laughs> non ba na foofu bu leen jàpp ne ñooñu rek ñi soxla am Sénégal bari probablement tous les crimes politiques et économiques dans une période déterminée. voilà exactement donc ah. du du du Karim Wade pourquoi ils bëgg jël lépp def ko Karim ci Karim. Karim déjà moom aujourd'hui li est tënk bariwul de ak parce que Karim n'a pas été condamné ni par vol ni par détournement ni par blan dara. enrichissement illicite. enrichissement illicite dafa yomb ñun ñi ku ñu ci topp daaneel enrichissement ah, hmm, ah, ci àtte bi nag ci àtte ah, bi nag gars yi joxe nañ firnde euh, ci ni mu doon. Euh, Euh, defee ay alal gi jaarale ko ci ay nit loolu moom ci procès bi bu ñu ko suivre gis nañ modus operandi bi loolu moom xamaa nekkatul débat mais Pape Babacar procès bi bu ñu xoolee depuis douze fois Karim Wade gagné na état du Sénégal te bu bërki démb rek gis ngeen buru bi gagné waat état Sénégal condamné ko à payer cent cinquante milliards. donc loolu lañ ci dépassé aujourd'hui la kër yi ñëpp xam ne c'est flop la ñëpp xam ne ne kër yi dañ ko tegoon lu dul ay problème lu ñu bëgg mooy ñi tegaat lép ci yoon Karim Wade ñibbi si ñi tabax Sénégal. est-ce que yéen bu ngeen falu woon deux mille vingt quatre Macky ak njabootam da ngeen leen di topp yéen itam nañ leen defoon. loolu de man mënu ma ci wax mais dama xam ne en tout cas la CREI pour man man ci CREI yi tey du ma ci d'accord suba. maintenant nag un état c'est normal quand on gère un état boo ñëwee da def l'état des lieux. <laughs> mais ay poursuites yooyu je pense que du loolu mooy defar réew. réew daal li ko def képp ku ngaa toog ci nguur. sàkkal pexe alali réew mi boo euh, ke rek ñu bàyyi la nga dem nonu quoi non waxuma dama la nguur bu ñëwee tu fais un état de lieu mais ko xam dafa sàcc dafa détourné mais lolu c'est la justice af nag dossier yi mu envoyé mais war nañ ko lolu war ñu xaar sa ñu ñëw af nag y tellement de dossiers aujourd'hui sous le coup de président Macky Sall dina ko régler bu ñëwee duñu fekk dara. pap Diop mi dem euh, fekk benno ci assemblée ndax euh, ñu léral ni andul ak benno ci politique ci assemblée la ànd ak ñoom.

Fati. Vous avez besoin de caution sur les marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque